di ñaan yàlla doolu jàmm ci réew mi nuyu réew mépp nuyu waa Banjul gépp nuyu waa Afrique gépp di ñaanal nag ñi nga xamante ne ñoom seen boppal réew mi leen ñor pour que ñuy ñaanal réew mi di leen bàyyi xel ne leen nu ñu bàyyi xel ci réew mi taxawu ko comme niñ ko war a taxawoo maam yi dañ taxaw woon réew mi suñuy maam dañu taxaw réew mi bàyyi fi sunuy bàyyi sunuy bàyyi xëy bàyyi nu fi nu nit nu war fi bàyyi suñuy doom ngoon nag comme ni fi war a bàyyi suñu doom e ñoom it ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo yeloo ñaan nañuy ñaan yal na yàlla aar réew mi amiin jërëjëf jaraaf kon euh, tey yow lañuy dalal ci démb ak tey ñu euh, dooree ko ci wax lan mooy jaraaf waaw jaraaf am nga bu ma ko waxee souvent dafa am ay nit yu nga xamante ne <clears throat> yàq mooy seen métier xam loo seen émission yi ngeen def ñaar a koy déglu ku baax ak ku bon nit nag su déggee nit wax wax ba sax bu ko leerul woon am na droit pour pose wat question laaj mais mi ku dégg ba pare xam lii kii wax nga changé ko modifié ko war nga xalaat ne da di déggee bés bis penc dee dafa garaaw dee sa baay sa ndey sa néegam ndey ak sa néega baay taxaw du nu la wax wax ju ñaaw kenn du wax dara koo wax mu ne ndeysaan ay ku baax la woon fekk ku bon nga woon moo fi ne fii ku dee ñu ne baaxoon na ku baax loon mësuloo dégg ko ne waaye ku bon dee woon na waay ku bon dee na waay te fekk ñenn ñi dañu bon bon na leen rey encore sax teg si nga modifié waxam parce que wax naa fii ne man Jaraaf Youssou Ndoye man maay le président de la république locale de Wakam maay Jaraafi Wakam ñii ko dégg kenn ku si nekk xam nga ne Jaraafi Wakam laa wax mais dañuy bind sax gis naa ko sax temps yi paase benn waay bu nga xamante ne journaliste la walla technicien la bu ay si affaire kii yi wax ne ñu jox ko benn élément te ñu ko jox ay waawakaam lañu su fekkonte ne démb la ma yoroon pouvoir ba sama maam yoroon dama leen di jëlaat yóbbu leen si wàlluwaay wi dóor leen ba ñu tëdd waaye foofu ne ni réew mi nag république la léegi moo tax kenn ku nekkay jéem a yëpp sa morom jaraaf Youssou Ndoye mooy le président de la république locale de Wakam bi ma dépassé foofu jaraaf Youssou Ndoye mooy président de la république locale de la région du cap parce que maay jaraafi Cap-Vert ku toog sa kër bind sa lettre dugal ko si ordinateur wala nga toog di wax ne jaraaf Youssou Ndoye nee ne mooy président de la république parce que ay baadoolo lañu xamuñu dara te ku ku xam sa bopp yëg sa bopp xam luy garaat bu yàlla may nit da ngay comprendre ne man may jaraaf yi cap moo tax ma wax ne maay le président de la république locale de la région du Cap-Vert nit taxaw fii ne man maay xalifatulaay ful ard nit taxaw ne may nangam si si si garaat yi xaala laahu xaar rasulaay ngoon nan moo tax ngoon yàlla teg fi diine du institution politique bii du institution ko fi taxawal institution gis nga si miti gis nga si ministre gis nga si député gis nga si directeur de service gis nga ci gendarme gis nga ci policier gis nga si ku ne alors pourquoi pas coutume amul loolu xanaa ñoom amuñu xel man mi yem CM2 ma mën a xalaat ba àgg foofu te ñoom mën ñu ko xalaat te ñoom ay baccalauréat kenn xamul Jaraaf mooy le président bu nga xamante ne lébu yi moo leen yor dañu am gouvernement hmm. boo demee si jàkk yi institution bu ñu wax diine amul diine jullit yeeg ko chrétien yeeg ku mu mënta doon am na imam am na ay nay wala déet mm-hmm. am na bilal d'accord nga. boo ñëwee si ñun am na président am na ministre de l'intérieur mooy ndey gi réew am na ndey jàmbur moo yor action sociale am na saltige moom la wax ministre de la défense am na farba moom moo yor lii nga xamante ne moo jëm si si si problème mu ëllëg yéeg fourne yeeg affaire yu demee noonu tout ça là te gis nga ko fii mm-hmm. am na ndey jàmbur moom laa wax ne moom mooy action sociale mm-hmm. waaw nga ñëw frais yi mooy ñii nga xamante ni ñooy dox yónnante yi mooy xale yi dox yónnante mm-hmm. ñoo ñu ngi leen di jël entre cinquante cinquant ans ak soixante dix ans ok durée légale frais quinze ans la soo fa nekkee président frais boo toogee ba sa soixante-dix ans mat dañ lay yóbbu si classe su notable yi laa bu boobaa sa quartier bu fekkente ne comme par exemple Ouakam ñu amoon cinq cinq euh, euh, euh, notable par quartier dañuy jël sa quartier yow da ngay am six sa quartier coutume bi dañ koy jàng mais dafa bari lébu. léegi notable yi ñoom lan mooy seen taxawaay. notable yi. dañ leen di jël si quartier bi magi quartier bi ñooy toog tànn cinq notable notable yooyu ñooy dem sa ndaw lële mu mel ni assemblée nationale. ñooy teewal quartier bi daal ci lu mën a xew quartier bi ci lépp lu xew. lépp lu ñuy waxtaanee bu ñëwee am nañu droit bi naka bu ñu jullee ba pare soxla nañ mag ñi. bu ñu jullee ba ñu oo mag ñi ñu wax ak ñoom si li dëkk bi wax. bu dee réglement la lii la su fekkee dañuy taxawal ne. kenn dutu fi ngénte ngénte yu xumba yooyu di oo ay tamaaki sabara yi kenn xamul loolu la ñuy wax takka su ko defee dañ naan ngénte lépp en tout et pour tout cent cinquante mille la laax bi nii lay demee benn kin lay doon bu vingt cinq kilos kii ne lii ceeb bi nii la ceeb bi nii ñu waxtaan si ba d'accord ñu ne lii mooy am. te loolu mu ngi am ba léegi ci lébu. mais euh, bu la neexee moom seulement nag comme ni mu demee nii xam nga dëkk bi. léegi kenn ko nekk na non je m'en nangam nangam mais loolu état mooy ñëw jàppale coutume pour que yooyu am état bu ñu taxawoon oote séminaire coutume bi taxaw ñoom ñu taxaw ñu wax règlement bi nuñ ko soxlaa ñu xam nu mu demee ñu jël police wala gendarmerie tekk ci disposition nit ñi léegi dëkk bi le parce que ñun boo su ñun suñu coutume ñun lébu. organiser ngeen. organiser nañu ba daraan am bu njëkk lu ne. da doon nekk. léegi yéen kilifa yi lébu gi mënu leen jël décision yooyu pour organiser seen gox yi. parce que dafa am ay nit yoo xamante ne dañuy jóge ci région yi ñëw. ñëw rax leen. rax ñu mënatuñu taxawal la ñu war a taxaw parce que soo ko defee te moom aadaam xamul loolu. loolu day taal am réew. te réew lépp lu ko yàqar bàyyi ko moo gën. waaye bis bu état àndee coutume bi nii. coutume bi maanaam boo demee ci séeréer si ñu taxaw. nga dem ci joolaa yi ñu taxaw. nga dem ci tukulóor yi ñu taxaw léegi réew mi normal. kon ci gàttal Sénégal neex naa organiser. ba ñu neex a Sénégal pour rek la ko du dara même ni nga gis sax politique bi ku nekk cëppar cëppari di wax lu ne di def lu ne toog di oser di wax président lu la neex wala nga toog di jël sa moroom gor di ko wax si rajo Sénégal yëpp di dëgg ay comorien di dëgg ay malgache di dëgg mais loolu loolu warul am ci réew mi warul. yàqante bi. yàqante d'accord léegi jaraaf moom kañ la jël titre bi. 2009 laa falu. Mm. et nag yàgg naa nekk na jaraaf nag. <laughs> parce que maa nga jóge sa kër bëgguma kan am na benn waaye dafa doon arranger suñu problème ak benn nit mm. ba mu waxtaanee ak man ba pare ne ma dama lay owaat ba mu owaatee daf ma ne baal maax yow nekkati surtout bëgguma kan bëgguma kan mbaaw gépp xam nañ ko ñi mu fi dayaloon ñu administration di tubaab xam nañ ko dofuñu maa ngi jóge ci alsandooy alsandooy moo jur moo jur mbay ndooy mu jur ma boo demee tëngee damay bokk ci famille bu ñuy wax famille famille yu bayam siis man distance sax nit di def lu la neex waaye Tëngéej falaa bokk mu am lu nga xamante ne sax boo ne jaraaf ñu ne jaraafi kan mbaaw waaw mbaaw mbaaw parce que suma maam moo yoroon mbaaw de waaw mbaaw ñi fii dégg xam nañ am na lu bari bari bari gis nga dañ koy seet dañ koy wax wala sénégalais rek mooy jël fekk mbir léegi si jamono bii bu jëkkoon mag ñi bu ñu jàppantee bu ñu dajee kenn ku nekk da ngay wax la nga def sa ay wa ñu ñu àtte ko mais léegi du ñu def loolu dangay asseoir fële def sa toox yi doon dul jiitu xaaj yor saw làmmañ ñëw fexe ba mu di modifier lépp ku la déglu sax bëgg yërëm ka nga jàppanteel bëgg la indil andi bëgg ko indi bëgg war indi soow loolu tëpp xel a tudd lii xew léegi xewul woon si mag ñi lu tax ñu bëgg di di sonal nit ñi lan est-ce que jaar nag yàq sa moroomu gor sa moroomu gor nekk si dara nga ne par force naa ko yàq mu ngi mel ni rek soxna si nga takk sab caxa caxa bi rafet lool ma ne tey caxa bi dina dinaa ka dagg peri tasaaroo nu mu tudde loolu soxor léegi jaraaf ñu ñu ñëw ba tey ci organisation bi gox bu ne ñaata jaraaf lay am Ouakam gi par exemple non non gox bu ne duñu max ñaata jaraaf lay am parce que xam nga boo demoon par exemple yoof ñu ngi fal si côté Sanégab Ndey boo ñëwee Ngor si côté Baye li ñuy fayal fale mu nga ñëw Wakam ñuy fale si Baye boo demoon Mbaaw ñuy fale si Ndey. lu tax différence boobu. waaw parce que xam nga dëkk bu ne ak ka sanca ak ñi ka sanca boo ñëwoon su mel ni Wakam sama maam Aliou Ndoye moo ko sanca ban année la ko sanca en mille six cent un la Wakam am mais nit mënul cinq dëkk rek daal di toog noonu dafa dem jëli ji ay gerbaatam ak léppam indi fu si ne rek mu tibb sa indi teg bu mu laajee dëkk bi daf ko dénk waa njóobeen mu am suuf suñu luubal fii si dëkk bii parce que dama ko daan takk tey duma ko takk dama wax ñu am suuf soo xamante ne dañ ko luubal si dëkk bii ba mu indi xare biram réew ñu xeexoo. loolu ban at la woon. yàgg na. mag ñi waxutuma at yi ay li ma lay wax mag ñee ma ko wax bu ñu toogee ba delloo ñu ne nañu delloo ndóoyeen alalam bañ ko delloo ba mu sax ba dëkk bi taxawaat xeexoo amatul dara amul si li ñu jëlaat alal ji ndóoyeen ne joxaat ko ay garbaatam ay waa ngéyeen ngéyeen yooyu ak ñun benn famille la kenn mënuñu tàggale loolu nag mooy daw si dëkk bi ba fii jombul nag nit ñi yàqoon nañ ko wax ci lu ñaaw def lu ñaaw waaye fii mu nekk ni tey man maa fi toog jaraaf Omar Gueye ak jaraaf ngay xujja ñoom ñaar ay bokk lañu man maax ñoom ñoo bokk maam benn nit ma ñoom ban taxawaay lañu am bu mel ni bi taxawaay bu mel ni bi ma am sinon bu ko raw sax parce jaraaf Omar sàmba euh, euh, ku baax la jaraaf ngay xujo ku baax la jaraaf Omar Gueye si guddi lañ mujj téléphonante dëmb si guddi balaa ma tëdd moom ñaanal na ma ñaanal ka si yàlla jaraaf ngay xujo dëmb si bëccëg ñaa oo oh na ñaari yoon te bu si ne ñaanalante nañ defan defante teraanga mooy ñaan yàlla yàlla dolli jàmmal sa mbokk mii mais loolu la nit ñi war a àndee coutume amul problème amul problème seulement am na benn wax boo xamante ne moo may naqari mais bu ma naqari itam dafa am fu ma koy teg. muy ban wax muy këne lébu yu ànduñu ku koy wax. ban ethnie yan ethnie moo fi ànd fii parce que nit ñi Dakar la ñu nag. Mm-hmm. lii lii waa Ndakaaru di di am problème moom la nit ñi di xam. Mm-hmm. mais ñun xamuñu li xew si région yi et pourtant dañuy toog fii gis nañu sax. région yi kenn du fa tabax ku fa tabax tabax bu yooyu gars liggéey la nga dee léegi moo fa am maa ko gis <laughs> man lu tax loolu sa doom bi wëjë wala sa doom bi càmmañ dem ndakaaru liggéey fa alal wala dem Italie liggéey fa alal ñëw daal di liggéey bâtiment plomb nga daal ne bu mu fi àggee daal dem tëggi bopp yàlla ñëw nga takk biiram di kërëb kërëb yi fu mu fan. d'accord jaraaf léegi ñu ñëw ci cosaanal euh, Wakam euh, histoire Wakam wax nga ko léegi ñu ngi ko samp boori 1900 euh, gannaaw loolu naka la ñu def ba 1600 waaw 1601 la ñu la ñu la ñu taxawal Wakam Wakam gi bi ñu ko taxawalee naka la ñu def ba dëkk bi suqaliku wax nga ne sa maam jëli na fu ne ay nit waaye ñi nga xam ne ñëw nañu wàll si naka la ñu duggee ci dëkk bi ak itam yéen naka ngeen leen dalale ñii ñëw dëkk si si dëkk bi lébu ku nekk xam ne ni dafa bëgg gan gan Sénégal si boppam sax moo bëgg gan mais dinaa la wax lu ndaw man boog si li ma mag ñi bàyyil bu fekkente ne dañ daan toog conseil des notables wala ñu toog si fii nga xamante ne mooy euh, bukkatu xam ne fa leen daan ñaanal dëkk beeg yépp mag ñi buñ laa ñaanal kenn dañuy ñaanal gan ñi ba pare dañ daan wax ne yàlla nanu yàlla may ñu am ay gan kii ñaan gan wéet na d'accord nga mm-hmm. nañu waxante dëgg rek dee mm-hmm. mais bu ñu nañ waxante dëgg mooy mag ñi dañ doon ñaan ne yàlla nañu yàlla may may ñu euh, euh, euh, ay gan ñooñu bu ñu ñëwee yàlla bu nu fi sonne yal na leen yàlla may teraanga di ñaanal gan ñi di ñaanal gan ñi ba waxaam gi mag ñi fii man fekke naa ba tàyyi ku yéex a liggéey comme sama compagnie gi ñu ne laan ah sama maga ñaan de hmm. waaw ñaan gu nangu noonu ko ñaane noonu ñaanal gan ñi di ñaanal gan ñi xiir si gan ñi gan ñi tey gi bu ñu ñëwee dinañ am teraanga lii si boonoon koñ mooy nga ñëw ndakaaru fekk yow boo ñëwee Dakar da ngay taxawal ba ngoon jot nga tëddi doo am dara mais bu fekkee li nga bëgg yaa ngi koy am Dakar du ñu sant yàlla ñun man de sant naa yàlla si loolu lii problème mu ndakaaru xam mooy lan ñëw ndakaar du saaga ndakaaru doo dem loolu moom ku mu neex man taxaw naa tànk ni kan koy def di jéem a teg ci lébu yi suñu ñaaw barka salaatul fatiha doo fi tàkk fii man ñi maa la ko ba si wakaam gi ma toog ñaan yooyu def nañ ko fii ngoon Sénégal sunu Sénégal la ñun ñëpp man pour man sax Sénégal bu ñu xamul Séné mooy lan wala si ban làkk la nañu jël gaal rek ne gaal gi sunu gaal la ñun ñëpp ko bokk mm-hmm. man loolu laa gëm wakaam gi itam day faral di am jaraaf ay coowu suuf loolu naka la demee coowu suuf loolu suuf moo amee noonu bayre Sénégal day am coow drogue Sénégal day am tow coow coow euh, or n'est-ce ak pétrole bi xewlee ah, ak ñoo xew xam nga lu loolu dañu affaire bu kii la loolu ngay gis noonu yàllaa dogal loolu. kan a war a toppatoo mbiru suuf ci gox bu mel ni Wakam. non si organisation bi kii la jaraaf a yor suuf si. dégg naa sax ay jeunes yu nga xamante ni dañuy nekk si mbir di jéem a nax opinion bi wala di wax si waxu coutume te fekk sax feraguñu walla ay mag yu jëmm yoo xamante ni ba ñuy juddoo si dëkk bi ak tey mën nañu romb sax ay paadu ñu nuyu. ba mag ñi dañ naan waaw doomi diw gi ndey kii day ka réew la mais tey dem nañu ba passé su seen bàyyi toll woon tey jii dem nañ à la xam nga looy xamati yow sa papa ji biir kër gi boo xëyoon doo ko sawar sax gis da ngay xaar mu dugg si biir nga sa génn daw liggéey parce que defe nga ne sa papa day laaj mille francs wala sa doom bàjjen gi day aussi na wala sa kat sa bàjjen day taxa a feebar ba ma amoon lu ma gënal u dem seet ko u jox ko mu jox ko ñaari junni mu toog la mu am muy boole si nga bañ sa papa wax la loolu nga nga nga koy nëbbuntoo sa papa sa papa toog une semaine du la gis kooku lan ngay xam sa papa dama lay wax lu leer de gis na fi may gis ni dama am affinité ak sama papa sama moroomi papa yi si dëkk bi bari na luñ ma jàngal ba kaam doon nañ xëy toog mag ñi toog ñaanal ma dugg naa si mbir yoo xamante ne ñoom ñoo ma doon jàngal ñoom ñoo ma doon formé bari na si sax lu nga xamante ne dañuy wax ne jaraaf euh, euh, xale yi nangam nangam jaraaf yi ma fi mujjee fekk am na su commencé daan wax jaraaf yi gone yi ay doom mu ngi fii daanuñ ko dégg ay soxnaa mu ngi fii kenn la fi dese muy jaraaf Jibril Ngay daana wax ne jaraaf yi gone yi nangam nangam dama defee nag Ah, ndey la woon. yow lañ doon wax jaraafu gune yi. waaw lu tax loolu. maa ñëw mas naa ko wax ay nit fii si dëkk bi boobu falagu ma sax xaaju ko ma falu. Mm-hmm. dama lay jox sax ay tur mam aas Guèye mooy doomu jaraaf Medoune Guèye. Mm-hmm. bees taxaw nañ buntu ko ñu maam Alsaan mu wax ne. ñu ne waa mais paa bu dee ma ne paa bu deewee ki ka remplacé kan la. man de xam naa dinaa falu ji xaw ma nag maa koy remplacé xaw ma déet maam as maam alsànni non yow man maa ne ko yow nelaw dëkk bi benn nit mënutul wax yàlla dogal na ne man maay dooni jaraaf gi lu wér a wér. bon boobu foo ko tegoon yow. boobu maa ngi ko tegoon si mag ñu wax gii ñu ma wax rek. boobu maa ngi nëbbutu tamit. mais mag ñee la jàppale woon. waaw mag ñi jàppale nañ ma nag parce am na yu bari yoo xamante ne tey jii bu ma nee woon dëkk bi nangam ak nangam kenn du si teg baat am na yoo xamante ne tamit su ma ne woon sàngam lii mu yemoon ak lii man ñëw defee nii ma ñëw defee nii mais kenn du ko weddi seulement nag ka nekk Dakar dégg coow la nekk Wakaam nu mu neex nit waxee ko xam nga gis nañ fi sax équipe boo xamante ne dañuy jog topp Dakar bureau bureau ministère partout nangam nangam te ñooñu. kenn ko si ne di nga dégg sax que ne yow Jaraaf Youssou Ndoye day sàcc suuf si di ko jaay di ko nii di ko nële mais ñoom ñoo ñu demoon armée sàcc fa sàcc gi mujjee 32 millions la. ñoom ñett. ñoom ñooñu ay cadre yi kenn xamul ñu nekk si dëkk bi ay tojamaan yu mat sax. fii Wakaam fii. ci Wakaam gi ñooñu tey gii ñooy gës Jaraaf Youssou Ndoye mu aw mu mu mu ñu ne Jaraaf Youssou Ndoye Jaraaf Youssou Ndoye ma nanu bàyyi nit ñi ñu toog ci seen jàmm man aw ma jotu toppal ci mbedd yi di tontuwaate bu fekk nag booy tëddee di nelaw maa ngi lijjanti nga jog ma ma nelaw tuuti jog daa di départi continue kërëb kërëb bi fii mu nekk nii dañoo mayul dañ ma mayul jàmm rek waaye bu nu mayoon jàmm coow bari loolu yépp jàmmalee doon actuellement fi mu nekk nii xam nga maa ngi toog fi waaye maa ngi am sarax bu ma defee léegi ana ñoom nit ñi ñoo ñu coow di wër ci mbedd yi di wax lu ne ñu koy dox seeni soxla ñee ngi xëy uti fu ñu jëlee ñaar man maa ngi war a jël sama xaalis pour dem jëndi lu ma defee sarax pour réew mi dégg nga fi may wax. xam nga loolu beneen affaire. Mhm. waaye léegi loolu si nit man buñ ma gisoon léegi. ma def loolu bu subaa jàmma ñu ñu dem wax fii dem si bureau bi nii ti nangam nangam loolu moo amul njëriñ coutume loolu kese moo si metti mm-hmm. da ngay fexe pour say mbokk am jàmm ñoom gisuñu loolu mais bu fekkonte ne yoon maye na rek pour que ma expliquer am na bés yoo xamante ne sum ko expliquer fii si réew mi ne leen nangam ak nangam ak nangam bés sàngam nangam nangam nangam bés sàngam nangam nangam nangam nu xam ne ñun dul seeni moroom. d'accord léegi ñu des ba tey ci wàllu suuf si kon jaraaf euh, problème suuf amul wakaam weesoo coow li fi amoon jamono yële yéen ak bàkki yu fay. à part à part ñooñu mën a wax chrétien yooyu di équipe boo xamante ne ñi ñu woon ci maire bu njëkk ba daan ñëw di toje ay affaire fii di lekk. yan affaire lañ doon toje marché yeeg. Hmm. fii booru kër Cheikh Béthio suuf soosu nekk foofu ñoom ñu jaay ko di si jaay ay nit foofu di leen truander arnaquer li may wax gendarmerie taxawu na foofu ba tay di liggéey liggéey bu bu bu baax ci réew mi ñu di jël alal bi di si def lu ne si dëkk bi waaw koo folli nag mu mer am na lu tax liggéey mer liggéey bénévolat la d'accord nga mm-hmm. bu fekkee dañ la fa dindi nga mer am na lu leen merloo lan moo tax ñu mere ma parce que magi Wakaam si jamono ñoom ñoo mën a tànnal si diggante diw ak diw ak diw ak diw ngeen fexe ñu voteel kooku maa convoqué réunion bi xam nañ loolu mais xamuñu ne si ndigalu mag ñi laa ko defe bi ma ñëwee ma leen ànd leen ak cee cee ndóoy lañuy faral mooy jibi ndóoy réunion bi tas ba seet wakam xëy voteel ñépp vote ci ñu gañe Bathily jàll mi fi jóge Bathily nag ñoom doon àndal comme jóge na fi ñoom it ñu sànni ko or ko mooy ñii équipe bi fi nekk nii si wakaam di toj wakaam bu état ne dafay fay un milliard trois milliards yi nga gis ku bind leetar wala ñu toog nañ sax fekk ñu ngi arrangé ay problème wakaam si xeex bi fi amoon bi passé état bi ñëw ne day fay wakam ñoom seen bopp ñu ne état bul fay waaw pour lan ban dëkk état ameel te te. tey état bu doon fay ci loxol kan la koy teg yow jaraaf. waaw nu nga ah waaw man ak jaraaf Omar Gueye sama noo fi ne. kon yéen a gérer lépp loo xam ne moomeelu dëkk bi la. nu nuy fay sax fi mu nekk nii. tey ku bëgg suuf jaraaf bu ñëwee wakaam yow lay war a waxal. mais su bëggee bëggee suuf da ngay dem jëndi suuf. saa saa nit oo oh, ma ne ma dama bëgg a jënd suuf sangam ma doon laaj ndax diw mii koy jaay moo ko moom ma ne moo ko moom wala moomu ko bul ko jënd. lu dégg nga wax bi. parce que lu fi nekk rek xam naa lan la demee. Euh, euh, état. mais jaraaf moom du jaay. jaraaf du jaay gis naa ba gis sax ni koo xam ne daf ma wóolu ñëw ne suma jabar ah, man dama bëggoon jaraaf gisuma ko. nga ma nga bàyyi fi vingt et un millions yii ba ma bu ñëwee nga wokk ne ko man maa ñëwoon dama bëggoon suuf ndàngam nangam sama jabar nag bul ma bul tax mu génn ma kër gi si biti daf may fase hmm? waaw jàmbur fi ma indi ko problème ah, ah. waaw waaw looy doyee ku bëgg suuf dama si ngay jaay suuf am nañu nag lu ñu attribué yi nit nit ñëw seen bëgg si jënd ñu jaay ko di gis ku jaay alalam buñ ko waxee mu ne noonu nii dina nangam nangam mais pour nëbbatu mu ne jaraaf a ko jaay di nga gis koo xamante ne la muy jaay moomu ko da koy sàcca mais pour nax kooku mu ne ko jël suma cachet defal ko ne ko jaraaf moo moo moo moo moo moo moo moo ma jox kayit gi jox ma ko boobu ñu la jege lay nekk ñu ma jege ñenn ñi ma suñu ma jege ñenn ñi ma suñu ma jegeñ de lu ñaaw si suma der ñoo ko def nan lay mbubboo daal. voilà mais kooku tey bu ma ko yóbboon tey gendarmerie gendarme bi oo dëkk ba bu yëg ko ay sëram ay doomi ndiyaayam ña nga xamante ne tey gii par exemple bëgguñu jaraaf yu mm-hmm. mais dañuy génn si dëkk bi dakaar partout ñu ne moom mooy jaayloo nii nan man lu may jaayloo nan nan laa leen di jaayloo état bi maa ngi sant yàlla si loolu dem nañ ba comprendre ne jaraaf Youssou Ndoye du moom mooy jaay alali kenn parce que koy jaay bindal na la acte de vente kii lay jaay yóbbu ko gendarmerie lii tax loolu du am parce que ñoom xam nga bandi du liggéey liggéey bu parfait day am toujours fay. waaw li tubaab merci. <laughs> foog nga bàyyi fa dara loo xam ne. moo lay feeñal. waaye jërëjëf yow xam nga affaire bi am nga. <laughs> xam nga léeg-léeg nit convoqué ma sax gendarmerie dañ ma dul wax lii nga xamante ne lañ may convoqué mm. mais parfois nit wax man li may wax ne man lii moom leen lay convoqué bu ma ëgsee bu ma leen waxee affaire bi wax leen ni mu tëddeeg ni mu demee ñoom seen boppa dañuy wax ne non c'est possible man la ool oh, waa ji bu bu ñëwee ma waat ko nit sàcc na fii xaalisu jàmbur mm. daw dem Guinée Bissau koppari suufu jàmbur terrain jàmbur. daaw dem Bissau jóge Bissau ñëwaat fii parce que dafa bëggoon dem xam ma benn Belgique ka mu àndaloon dem na moom demul ñu retourné ko mu demaat Maroc ba mu demee Maroc retourné waat parce que la mu yor lewul mais bii que euh, brigade de recherche jàppee fii si benn bar xam ma benn restaurant xam ma benn dancing man dama xëy rek ñu mag te toog naa un gisuma ko mais da leen wax ni garab yi su laa jox xaalis bi. ñu ooma ndekete moom doonoo xale yi bu jëkk ne leen man bés bu ñu ma jàppee ma Touré ñu jàpp ma jaraaf Youssou Ndoye laay tudd ne moom la moom laa ko jox mais ce que loolu war na nekk te ba léegi yaayam ñëwul ne ma baal maa xade te bii ma ñëwee dama ne booy seet leen nu ngeen def seet leen si poos yi fi nekk ngeen xool nu ñu def pour régler problème mu kii maa ko génne brigade de recherche ñu maa fay neuf millions. mu des moom kii mu ko jaayloo sama jarbaat lay séyal Saliou Jonn sama jarbaat lay séyal mais xam nga lu mu def moom Saliou Jonn boobu toog fii parce que nekkate gaañu booy boobu la ñëw toog toog toog toog toog toog toog toog fekk terrain bi mu bi bi bi ñu ko jaay baax na mais moom nekkate ñëwoon na sax ba ñu jàppale woon ko si yeneen mbir si affaire fu mu doon élevé ay ginaar mais ndekete bu ma deewoon mu may ak sabar dafa dogaat toog ba dara desu dul xale yi xale boobu fexe dem tukki actuellement ni may wax yow nii mu ngi Allemagne ñu koy wax Antoine te Antoine boobu ba mu toogee ci séddale ci parcelle dafa toog ci sinca gii mu dëkk li may wax ci rajo laa waxee waxee ah. Euh, euh, di ko wax ne ko waaw Antoine mu ñëw ne dafa bëggoon suuf bu mu dëkkee mook yaayam étage ma ngi fii étage la am fii si ginnaaw ba mu toogee bañ na ko sa parcelle ngi nii te dafa quartier ba mu dëkk dafa ñu ne ko sa papa du lébu waa Tamba la loolu naqari ma parce que c'est pas normal nit ñëw. Mhm. war a bëgg dëkk ak yow. nekk ak yow yaayam sax dëkk fi. Mhm. nga ne dëkk fi. te seeni maam doon ñaan ay gan. atte rek est-ce que loolu rafet na ma xare ba mu am parcelle xare ba mu commencé tabax xare ba mu am air plus ndàngam xare ba mu jël yaayam dugal si biir tey gii waa këram xalaatul ne dañu luye xalaatul ne waa këram nangam na et pourtant ay doomam bàyyam fii dañu luye ba génn dëkk bi ñu ngi géej ñu ngi fële si Kër ma est-ce que kooku moom moo war a def lu ñaaw man léeg-léeg ma toog ma xalaat ma ne non peut xam na yàlla def teguma lii pour ma sonn rek quoi. Hmm? kon daal ci gàttal jaraaf Youssou Ndoye yi nu koy dégg yëpp daanaka nit ñee ko ciy dugal rek. waaye. léeg-léeg man si sama bopp maa ngi leen sërëb si biir xamul tax. Hmm. damay fekk problème mu jàmbur mu ñëw joytuma ko. ma taxaw ne man la. Hmm. kon yow dinay dinay am ngay engagé ay mbir yoo xam ne daanaka sa yoon newu ci. mais responsable la responsable boo mënul gàddu nit ñi pourquoi nga ne yaa leen res lu tax. man dinaa ñëw ne may ngi jaraaf Wakaam xale yi Wakaam yi toj toj bi ñu fi def ak mark yu fay fii la ñu toog na ma jaraaf il faut nga jël affaire bi yor ko. ma <laughs> fekk jaraat du ci dara. du ma ci dara ma ne pour ma jël ko foog ma waxtaan ak mark yu fay ba pare parce que tamit il faut ñu waxtaan. parce que man instant bi may falu. boobu temps fekk na ñoom ñu commencé liggéey fii. te réew mi laajul ñu xar ko. tey jii bu ñu indil coow wakam te bi ñuy jëkk a ñëw si jumaa ji man mii maa ñii toog si jumaa ji di notable ma ne bu ñëwee dañuy net dañuy expliquer rek génnat mais fekk na booba temps si biir notable yi am na si na nafiq yoo xamante ne ñoom seen boppa ndekete ñoo jëli ji booy ñoo leen indi pour coow li tas pour que wakaam mën a xeex doonuma si dara ñoom ñu fi dama ne gendarmerie bu fekkonte ne dañ waxtaan ak man dama leen di dama leen di wax ne léegi man maa leen di bindal convocation ngeen ñëw fekk as ngeen ñëw euh, conseil des notables bu ñu ñëwee taxaw maa wax leen lii xew xamal leen ne xale yi def nañu erreur mais diw mi ak diw mi ak diw mi ñoo def erreur mais teelu ñu ma bu ñu ma teelu woon rek ma régler problème bi. te bala préfet wooy tamit demoo. gouverneur bu ma ooyee daw mais après bi kenn ku nekkee xamee na nag nii la demee mujj nañu toog waxtaan ba déggoo ba fi mu nekk nii vraiment suma xarit. d'accord yéen a ngi teewlu seen émission démb ak tey ci Rewmi FM ñu ciy dalal jaraaf Youssou Ndoye waxtaanee lébu gi ak organisation bi jaraaf ci ndoorteelu waxtaan bi yaa ngi wax ne euh, lébu gi euh, dañuy wax ne dafa xar xarul waaye bu ñu xoolee ci grand serigne ñaar ñooñu dafay wane ne lébu gi ñaari pàcc la foofu nag la ñuy jaaree ñëw ak yow ci rôle grand sëriñ ci lébu gi. grand serigne ku nekk xam na ne grand mooy bu mag. ku mag. sëriñ mooy sëriñ grand sëriñ sax waxuñu ko woon grand amu si woon parce que mag ñi dégguñu woon ay français ba naan ay grand ay petit. Mm-hmm. sëriñ Ndakaaru sëriñ Ndakaaru rek lañ doon wax sëriñ Ndakaaru nag góor gu jóge woon kokki ñëw fii si Ndakaaru di liggéey si Ndakaaru bu nawet jotee mu dem bay gi ay affaire am góor googu doon ku mën jàng soo soo nee sànga ne moo dàqoon jàng sunuy maam. mooy kan. mooy man damay fàtte sax kii wu Ndakaaru parce que léegi fi mu nekk affaire grand serigne intéressé wu ma parce que amul importance fii si Ndakaaru. Mm. parce que ay ayoor lañ dëkkuñu fi ay gan lañ. kon bokkuñu ci lébu gi. fu ñu bokki si lébu gi naka la ñu bokki si lébu gi xam nga nan lañu bokki si lébu gi. Mm. Ngoone Mbengue ma ñu may ma ñu may seen maam. mooy sëriñ bi fi ñëwoon. mooy sëriñ ba. Ngóone Mengo ma ñu ko may kooku muy ab lébu dañu seet ne góor gi am na solo na nanu fexe nuñ koy kéwee mais ñoom fi mu ne nii dañu am complexe wax ne sunu mu ngi déparé euh, fële. ñoom ñoom grand sëriñ ñoom yi fi nekk yëpp. Hmm. muy Ablaye Matar muy Papa Diagne man may wax maa ko wax maa ngi yii di dox si mbedd Ndakaaru koo fekkente ne lii ma wax gis nga ne lu dëgg soo ma gisee ne ma jaraaf li nga wax lan la. danaa la tontu wax naa ko si 2 quelque quelques jours après ma daje ak euh, Ablaye Makhtar ñu waxtaan si mu ne ma doomu doomu Aram Dieng ku ñuy wax danga xam naka sax moo ma moo ma oo wax ma ne ma si débat boobu laa nekk ñuy waxtaan mais bi ñu toogee seen TV la defe na mm. bi ñu toogee waxtaan ba loolu nekk ma ne ko ah léegi lu ma loo si xam mu ne ma ah tu as raison fii grand sëriñ bu fi wax ne grand sëriñ nga rek <laughs> euh, si sa papa si sa yaay nga koy jëlee ne nga mm. mais mënoo wax ne grand sëriñ nga fekk da ngay ah. kon ñoom grand sëriñ yi du ay lébu. déedéet. yaay mooy doon lébu rek nga mais seen papa lan lañ ay waa kokki lañ moom naa la wax kokki lébu si lébu gi la bokk. gisuloo ñuy jékki-jékki di foraatu naa noonu ba ma demee Touba ba ma nee ba ma ne parce que sénégalais la ñuy nax. pourtant sénégalais yu bëri dañu jàpp ne grand serigne moom moo nekk ci bopp léebu gi. waaw parce que xam nga fen wu ñu organisé bu fekkee dafa fekk dëgg daf koy noyé waaye dama bëgg pour que ñu comprendre ne man Jaraaf Youssou Ndoye su ma dundee su yàggee Sénégal yëpp dañ xam kuy grand serigne kii et kii. jaraaf moo ilif grand sëriñ ndey gi réew moo ko ilifoon naa ndey gi réew rolu ministre la yor. kon jaraaf mooy président moo nekk ci. ci bopp bi jaraaf bi. jiitu lañ ko wax. amuñu buur nag. boo ndax organisation bi nga ma libal sànq sax grand sëriñ nekku ci. nekku si xam nga grand sëriñ kañ la am. 1790 xam nga 95. ñii ne nañ ne 90 ñii ne 95 mais xam na ne. trois cent soixante huit ans xam nga trois cent cinquante huit ans moo dox si diggante euh, ñii ak kii far ba moo jiitu Grand Serigne. ba moo nekk ci daanaka ci suuf. Farba mu nga sa mooy boo ko xoolee ci rang bi si RSI bi dama la bëgg a wax ne Farba xam nga moo doon dajale mbaar yi. Mm. mbaar yi tëgg yi. Mm. pour que ñu defar ay ëllëg pour que nawet bi ñu mën a bay. Mm. suñu bay ba pare yooyu matériel yeeg yooyu def ci grenier ba mu fees pour que nit ñi mën a lekk donc xam nga ministère bu am solo la loolu ma ne la parce que Farba fii la dëkk mais grand Serigne laa ne moo jóge kokki dégg nga fi ma jëm mm. Ablaye Matar fii mu ne nii soo ko laajoon bu fekkonte ne tey bés pénc la yàlla tegaat question bi mboon dafay ànd ak man si parce que moom dafa bëgg a wax ne moom yaayam lébu la Papa Diagne yaayam du lébu kaw la dëkk am nga bëggee di xeex <laughs> gis nga coutume moo garaaw mm. mais loolu yëpp ñoom ñu ànda juboo moo gën si lébu gi xamuloo ne Papa Diagne bés bu mu falaw balaa moo dellu sa man dem naa si moom mm. maa ngi ànd ak sama yaay maa ngi ànd ak El Hadj maa ngi ànd ak euh, am na keneen comme ànd Abdou Faye la defe naa mm. bi ma dama ko wax ne ko yow Pape Mor woon a falu. noonu nga ko waxee. waaw waaw parce que Ablaye Matara ko mag. mu tontu la lan. mu ne ma Abla man Alioune Diagne Mbor moom laa yónni après décès Bassirou Diagne nekk dem naa leen yónni ne dem leen si moom ngeen ne ko mu may ñu comme mooy ndey ji réew gi nga xamante ne moo nekkoon si biir Ndakaaru mu may ñu fii ak 40 euh, jours. bu baas amee 40 jours ci suuf ñu fal grand sëriñ moom moo ma wax ne munuma d'accord Bassirou Diagne di dund bëgguma ko ma xaar ba mu dee ma koy bëgg ndakaaru xam ñu li indi problème bi de looloo indi problème bi man jaraaf maa ko wax Papa Diagne ma ko wax mu di dund ama moom benn wax nag seen tappalee grand sëriñ yooyu man nekkuma si sama maam mënula la gënal seen maam dimbali ko may ko soxna dimbali ko abal ko jox ko fu mu dëkk fu mu dëkk ak fu mu bayee fu mu lee nga xëy xëy rek màgga bëgg a defe ne man yem may ilif du ma ko d'accord man du ma yàqal coutume bi mais bu mu ko waxee loolu moom moo tax mu falu ma ne ko d'accord na bu doon man noonu lay defee mais jàppal ne Ablaye sa mag la seen ñaari baay ñoo bokk benn ndey Mariam Jóob Maxtaar ma leen jur mboon man li ma bëgg mooy Ablaay ni jiitu yow nga topp si barke salaatul fatiha bu lii amul yàlla naa dee koor gi bu ma fekk ñu xuloo def lu ne ci guddi gi ba mujj ànd d'accord ma ne ko léegi dinaa dem si Ablaay bii ma ñëwee man daw ma si Ablaay directement sama yaay moo dem ne Ablaay jaraaf daf la soxla boo fekkente nag xam na ne man bu ma ko soxlaa jàmm rek laa koy doyee boo waree toog parce que ñoom man maa ñoom ma seen papa ñoo bokk ndey ah. waaw hmm. ah ñoom grand sëriñ yi. ñoom grand sëriñ yi. madame ak maam ñaañe mii fi nekk ñoo bokk ndey Bassirou Diagne mii fi jógee ak param lu nekk maam ñaañe def na ko si maam ñaañe ngi du dund. seen papa nga. seen papa la may seen kilifa. maanaam gisuloo Ablaye wax na fi bés ne président Macky Sall na leeral lii wax kuy grand sëriñ. président Macky Sall du wax kuy grand sëriñ parce que moom falul fulliwul walla déet. Mhm. lii dugaloon Ablaye Wade ba muy ñëw naan kay grand sëriñ ak kële lële ku nekk xam ne ne président Macky Sall niroowul ak Ablaye Wade niroowul parce que dafa am nit yoo xamante ne benn nopp lañ am na nit yoo xamante ne dañuy réfléchir doo ko def. am ñoo xamante dañuy def ba pare doog réfléchir <laughs> non na leer hmm. man dama dëgg laa fi nekkee nan lay mën a nekkee yow nga ne yaa ngi dox si coutume mais ni ko nekk administration affaire administrateur civil yooyu na ko yóbbu fa mu nekk administrateur civil mais pas fii fii dafa am ay normes. kon ci yoon daal bu grand sëriñ demeewoon bay am Ablaye Matar la war a nekk. déedéet déedéet. Ah, loolu lu tax nga nekkee na kii jiitu nga topp ci. parce que daf ko mag. d'accord yow ci âge bi nga ko tegoon boobu Ablaye Matar kii ko jur dafa bokk si affaire grand sëriñ yi muy Marim Diop Matar kii jur du Diop Mbuuse mii papaam laa wax Basirou Diagne ku ko jur du Marim Diop Matar moo jur ñaari seen ñaari papa te Marim Diop Matar dafa nekk si kër gi dëkk si kër gi am fi toom jogaat tey jii ba kooko nelawee mu dana kër ñu ñu àndaat keneen ñu am doom waaye ñaari doom yooyu ñoo bokk affaire seulement Ablaye daf si am ñaari paar Papa Diagne am ci benn paar. li nga wax yow fii nga dëkk. sa famille bii nga dëkk. bu fekkee da nga fa sëy ak sa càmmiñ. Mm-hmm. dellu ginnaaw sëy ak sa dëkkandoo. lan ngeen ñaari doom yooyu luñ bokk ndey. Mm-hmm. te fekk kii nga sëyal Euh, euh, dafa am ndoomu tànk bu mu am ci sa biir famille ngoon sa biir doom am na si ñaar ki am na si benn loolu mooy diggante ñaari grand sëriñ rax ci dolli nag kii mag parce que bu Papa Diagne magoon Ablaye moo war a topp ci moom parce que nit ki mënu ko si ëpple du xastante lu ñuy ñaawoo dégg naa sax de ba la dégg ku ne ma xama barke dem ba que état banque si dox yàlla nañu réussir mm. nañu nangu nag parce que lébu gi changé na façon loolu moo taxawal ñu am benn haut conseil de la collectivité lébu man mii may président bi lancement bi def nañ ko keroog tëngeeg balaa loolu def nañ ay kii yu bari si ci si si ci ci lébu gi lébu yi xam nañ kii kii tàngara nag fiir bay màndee te man nag wax fa dëgg ne yàlla damay nag jël place yi whisky nag si sant wi <laughs> jaraaf léegi am na leneen loo xam ne aussi ñu ne collectivité Lebu dina ci dugal loxoom muy coowal Casamance gi ban taxawaa ngeen ci nar am ngir jàmm ñëwaat. Casamance laa ma fa gis jàmm kese laa fa gis ñun kañ dañuy ñaan yàlla yokk Casamance bu ñu demee Casamance dañu dem Casamance parce que suñuy mbokk ñoo fa ne. dañu dem Casamance parce que mag ñi dañu wax ne lébu ak joola séeréer rek bay nunke yeeg ñi ngay gis ñëpp ñun ñoo bokk maam ak tukulóor yi mu doon loo xamante ne lu wér la ba ma ko mag ñi wax dañ ma wax ne soo seetee euh, am na euh, lébu dañuy wax aw Casamance dañuy wax aw séeréer dañuy wax aw nañu seet aw boobu lu muy tekk si ku ne bon sunu mokk wér na aw gi lu mu tekki non si ñoon aw man na aw aw laa liggéey nii mm. wala aw faa jëm aw nakaa def mm. aw nii aw nele mën nañu wax loolu ne eh, ana ndey mu ne ngi aw nii mm. waaw lii xew nag bi ma demee Casamance ñoom kontante bu ñu am man am naa bu ko raw ma leen ci remercier si loolu ñu def muy gis seen bu ko kontaan si ma gis nag ku nga xamante ne jàmm kese ma ko tax a jóg muy le roi d'Oussouye moo estafam jàmm kese lañ gis nga keroog ba mu yëgee ni Kera fi sundee nii fii la dëkk man mu ngi ñëw fii léegi léegi lépp lu mu jàppoon daf ko bàyyi. bi ñu toogee waxtaan tamit dangay gis ne kii dafa kontaan moom su boppam sa wax na ko nee na ma man dama kontaan mais kontaante bi ma kontaan mooy ma gis suma ay mbokk ñu ñëw maa ngi lay dégg yàgg na dañ may wax jaraaf yu sundoo yi jaraaf yu sundoo mais actuellement tey dafa mel ni man dama tukki ndax kontaante soo amoon lu ma gën a nag yëgoon ba ngay ñëw ma teeru la comme na ma la war a teeroo ma ne ko man nii ma defe nii ak yow man nii lay gën a yëg ni maa ngi suma dëkk ñu waxtaan waxtaanu biir ni teg lépp si fi ñu ko war a teg muy si ak mbokk si réew mi jàmm ji fa war a am ak tout. tànk jàmm moo woon. waaw dama bëgg pour que senegal ñëpp doon benn xam loo man su ma amoon lu ma gënal dama koy man ba bu may dem Casamance damay jël ay t-shirt def ci suñu diggante jël ay oto. teg gars yi ñëpp ñun ñëpp ñu départ utali Casamance su ma amoon lu ma gënal Casamance damay invité ñoom ñooñu ma fexe invité leen ñu ñëw Ndakaaru ñu ñëw ñu toog ñun ñëpp ñu bokk a toog waxtaan waxtaane Sénégal mu nekk benn bés wala ñetti fan yoo xamante ne dañuy ànd bu année ba la ñu ñu dem Casamance def fa ñetti fan man loolu laa gën gis parce que dañ war a ànd Euh, euh, euh, si loolu dem naa ba gis ne Casamance booy wax ni maa ngi dem Casamance nga gis nit ñi ku nekk naan waaw nit ne de dugal fii génneel fii ba ñuy dem sax am na benn notable bu wax ne gis benn notable nekk bàyyi den bu ñu demee ñoom ñëpp dañuy seen seen dee taxaw na. Mm-hmm. ñoom xam nañu suñu mbokk lañ et puis Casamance fa am jàmm kese fa am xanaa kañ lenn. foofu ma fi profité di la lancer un appel aux Sénégalais ne leen Casamance jàmm kese moom laa fa gis bañ fa demee nekk ñu fa lu dul wayaak sabaroog def lu ne muy jàmm bañ fa demee li ñu gis mooy ñun Sénégal ñoo war a def di toog di xalaat di wax ne yàlla na ñu yàlla dollil jàmm ci Sénégal yàlla na Sénégal raw si si yàlla yàlla na yàlla defal jàmm si Casamance dolli fa. am na fa. mu dolli ba Casamance raw si région yi. man de lu ma nëbbatu ah. yàlla na raw région de Dakar si jàmm jàmm jàmmi toog waxtaan jàmmi foo jàmmi am lu nu dunde jàmmi am lépp yàlla na fi Casamance raw. man loolu lay ñaan. jaraaf fi ñu jeexalee mooy république lébu ak euh, tey république bi fi nekk président Macky Sall jiite ko ban rapport ngeen am lan mooy seen relation. république lébu amoon na amatul. parce que Sénégal bi mu bëggee indépendance am Senghor bu mu demee di ko jëli ñëwaat na. xam nga lu bon ci réew mi. yàq histoire. wala bu ñu waxee histoire benn ethnie. nga gis tel ministère wala benn nit bu nekk ci benn place wala ci rajo yi. ñu naa naanoo di kii ba lébu yu gis ne dañ leen dañ leen di frustré xam nga lébu lu mu bëgg dëgg yaa ngi dëgg jaraaf yi sundooy partout xam nga fu ma fi dem dëgg laa fi nekke danañu ñëw di arranger problème ma gis ne lii bu ñu tojul dëkk gi du génn ma toj ko ñu avancer lébu yi bëgguma ñuy tooñ kenn parce que ñoom seen bopp comme ñii dañu bàyyi seen région ay région lañu bàyyi ñëw nañ leen uuf nañ leen yéene ma parce que ñu ñëpp ay sénégal lañ yow man mu sax mu ca ba dem beneen réew ba ñu ne la togale nga wala leneen nga mais naka ngay mën a gisee ku dëkk Sénégal te considéré ko comme mbokk loolu maam yi baax na xam nga Sénégal mag ñi wax nañ ma ne ma en mille 1967 bëggoon nañ dellu si loxol France hmm. waaw. gannaaw bi ñu amee indépendance. ba pare. ba pare 1967 xam nga fu ñu réglé affaire bi fii si nu mu sax fii ministère yooyu di yaar si aéroport bi nu mu tuuti. salon d'honneur salon d'honneur dañu bloqué aéroport bi benn avion naawul ñu waxtaan ba d'accord. lu taxoon ñu bëgg a dellu ci loxo tubaab. parce que ni Sénégal doon demee neexuñu. yorin bi daal loolu erreur la woon d'accord nga wax jërëjëf waaw teg nga li ma wax lépp laay teg ku soobee yàlla. Ah, jërëjëf comme loolu la. <laughs> di ñaanal réew mi nag pour que euh, ñëpp nekk si jàmm. di ñaan yàlla dolli réew mi jàmm may ñu jàmm ju bare bare bare bare. ah barke Seyna Limaamu barke Alaaji Malik sama sëriñ sama sëriñu papa barke euh, sëriñ Touba yàlla na barke Cheikh Saad yàlla na Sénégal raw Afrique. waaye tamit yàlla na euh, Casamance raw ci Sénégal ci jàmm ak salaam barka Mouhamed yàlla na yàlla def loolu allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. jërëjëf jaraaf yi sundooy ñu ngi lay gërëm bu baax moo nekkoon suñu gan ci démb ak tey ñu doon waxtaanee lébu gi doon waxtaanee Sénégal ci gàttal ñu jox leen dig daje dimanche bi ñu dëkkmal incha allah Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi jaa ngeen jëf ba beneen incha allah.